Similé! Macky Sall day ah jubóole na waa Burkina Faso de la quotidien yéene kay ne président Macky Sall day mi président CEDEAO waaw ah, moom day fexe ne nag maanaam kon ba jubóole nag ña nga xam ni kon ñoo doon reyante ca Burkina Faso ge looloo tax nag ba maanaam kon Macky Sall day ak président Yaay Boni ci turu Union africaine ñu daal di bàyyi xel nag ñoom tamit day takk der yooyu même bu dee sax contour nañ fa deret ju bëree bëri ak coow li nga xam ne nag moom douze ba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru novembre bii di ñëw ñaar général Ciribert Diendéré waaw mi nga xam ne kon moo def coup d'état ba day danañu ko jéggal ak ay nitam eh ci jëf yooyee nga xam ne kon def na ko ca coup d'état ba ñett président bi nga xam ne moo fa nekkoon di Michel Kafando danañu ko delloo kon ca palais ba ñeent ay jege ñaale Blaise Compaoré yi kon duñ bokk ci élection yi day léegi nag mën nañoo bokk ca élection ya alhamdulilah yéene day waaw jàpp nañ ne nag waralu accord goo gée gàcce la onde gàcce la sërif si colonel général ci boppam kon ak ay jegeñaalem day dañ leen a teg loxo ba noppi kon daal di leen atte parce que takk déer yi kon te coup gën a gàtt rey nañu lu ci tolloo fukk ci ay doomu aadama laa wax fukk ak ñett yoo xam ne kon am nañ ay gaañu-gaañu te gis nga RSC takk déer dañ leen a war a tas leen ci nguur gi ca ba bale citoyen jàpp nañ ne Macky Sall daal lii nga xam ne moom la am ca Burkina Faso waaw ma la gàcce la parce que ñoom ay jege ñaaleem tamit riir nañ kon wutali hôtel ba Macky Sall nekkoon le populaire ne ñun kay ñi ngi doog a xam nag lan moo tax Macky Sall ba muy dem ca Burkina Faso googe yóbbaale kon garde rapproché am yëpp takk der Mamadou Diop Decroix ci tribune yéene kaay ne Macky Sall daal ma ngay jéem a kàttanal kon wàllum waxtaan ba juboo ca Burkina Faso te waxtaan ba juboo amul ci réewam gii di Sénégal ah ah Decroix ne waaw ma ne la xoolal ah ma ne la kasoy tribunal commissariat de police kasoy tribunal commissariat de police le soleil yéene kaay ne lu njiig waa privé ñooy njàkk uh-huh. général Amadou Tidiane Dia ci le eh ci laas ne démissionné wu ma du ma démissionné laa la wax général bi ci le populaire yamu ca ndaxte nee na du fi am de xanaa naa rek ba daanoo ngànnaay kon sa loxo Iran daw ci l'observateur ne commission bi ci boppam ñu dénk rek wàllum ak gile dañ koo war a dénk ñoo xam ni kon sëriñu daara parce que ñii dañoo tëlee ah Iran daw bu Sen TV yamu ca ndaxte nee na mënuñoo dénk ab aji makka yow ay nit ñoo xam ni kon xamuñu dara ci li ujaaj bi war a xam ci li gën a ndaw ñooñee xamuñu ko Moustapha Cissé ci tribune yéene kaay dinay sàkku daal commissaire bii di Amadou Tidiane Dia nee ah, a wax Elvis Saloro ci tribune yéen kay yamu ca ndaxte Moustapha Cissé Lo day daal dinay tontu nag ay noonam bu baax a baax waaw xamal na leen carrément ne leen affaire gi lée damaa ba ñu koy defar waa kon kay bu ñu demee ba Youssou Ndour Babacar Touré Moustapha Niass Ousmane Tanor Dieng di indi ay nit ñu leen di fal asama man mii nga xam ne kon mi ñuy taxaw la affaire damaa ko tiisee Moustapha Cissé yamu ca parce que nee na Cheikh daf may yóbbu ci kanamu tribunal ñibbi ña dem ca Paris est-ce que ñibbi si nañ tribune yéene kaay ne lañ fa doon waxtaanee de mooy groupe de travail wu Nations Unies ci wàllum Karim Wade waaw waaye Macky Sall nguuram day dañ leen wili fande xas leen fa kon ba maar di taali ah, waaw waaw maître Abdoulaye Tine ne Sénégal ci boppam waaw daa war a ndàmp Karim Wade laa la wax da koo war a fay xaalis atab Njaay askaaw moo waral ndaje ma nee na Sénégal ci boppam moo respecté ak ak yelleefu doomu aadama laa la wax waaw waaw état la boo xam ne day ay nit di leen séquestré te loolee baaxul laa lay wax nii ngir kon bailleur de fonds yi nga xam ne dañ fi ñëw di fi dugal seen xaalis Pape Samba Mboup ci tribune yéene kaay ne Karim Wade daal leen génne ci kaso mbedd mi rek nit ñi wàcc ci mbedd mi mooy tax Karim Wade mi le ñu génne ko ci kaso bi laa la wax marti Italie Alioune Ndoye maire Dakar Plateau ci la populaire ne ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw lii marchand ambulant yi ay tan lañ rek yu wër médd enquête yéene kaay ne financement réseau des femmes pour l'émergence est-ce que lii du ay naxaate laaj la ca samp de la jara ca kay mooy présidentiel ya libération yéene kay ne la ligue des waaw nee nañ Abdoulaye Baldé la ñuy tribune yéene kay ne Serigne Modou Kara day ma ngay defaraat kon parti mbaax PVD Khadim Gadiaga nag la mu mooy ñu defaraat Parcelles Assainies nee na unité 1 ba unité 6 dañ koo war a boole ci parcelle waaw waaw autorité yi kon duñu leen jox ay wàllum subvention parce que ñoo la war bokk ña ministre bi day dafay jugee i la ah bu ñu ajee Màkka ba ñëw Mohamed Boun Abdallah Dionne day sàkku ci président Macky Sall mu wàccee ko ah, am na ñuy xalaat Eva Marie Coll Seck wala Mary Teuw Niane ca primature de waaye Abdoulaye Daouda Diallo Ahmadou Ba ñu ngi leen di xalaat ñu remplacer kon premier ministre leen nit ñuy xalaat kay guddiñ tol ni lay mooy tabaski bi l'observateur ne Alioune Sall day téeméeri xar yu manqué ñaar la daal di kon séddale ca Louga gé Moustapha Diop ñaari téeméer ci ay xar la séddale ak ñaar fukki ak juróom ñaar ñëw ca Bambey gé ay dëmbooj fukki million la jox kon néew téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar ci ay millions la séddale néew ju doole yaa grand place ne ca Kaolack day waaw Mohamed Ndiaye séddaleem xar rek moo raw gàddu ga kor Mariama Sarr waaw ci ay moyens l'évidence yéene kaay ne tabaski 2015 waaw ministre yeeg directeur généraux yeeg président conseil d'administration yeeg nee na ñu may ma la kenn gisu leen <laughs> day taxul ñu fal leen déedéet boole ca kay ñii tamit fay seeni téléphone buñ bëggee falu ñëw ci nit ñi nit ñi buñ taxawee ñu ne may daw loolay tës kon tëjal